dañ ci euh, boole Youssou Ndour donc loolu moom moom bu sañan daal dinañ ànd ak moom liggéey engagement yi ak projet yi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal ñu àndandoo liggéey ko ba nga xam ni daal euh, en 2019 victoire éclatante bi nga xamante si nii ñun ñu ngi koy xaar ñu ànd koog moom ki ko parce que tamit loolu moom mooy suñu ndam mooy ndamam. waaw euh, diggante Youssou Ndour ak Macky Sall donc ñoom ñaar mën nañu ànd mais bu fekkoon ne bàyyante am na ci ci président Macky Sall lay gën a métti parce que pression opposition fi mu toll nii. Youssou Ndour bu ci génnee bu ñëwé bu génnee ci pouvoir bi dem ci opposition bi donc pour jappalé opposition bi ci Macky Sall lay gëna metti quoi waaw ci Macky Sall lay metti euh bu féké Youssou Ndour benn ben problème lay am bu féké mi ngi en règle ci ay impôts ci ay fiscam bu dé mi ngi en règle man na bañ am problème bu féké ci réewum yoon lañ nekk man na bañ am problème mais mom bu génnee mom ak pression wu Idrissa Seck ay Sonko sorti yi ñuy def nga xamanteni ni daanaka nit ñi dañ lay déglu. en même temps Youssou nekkon ci bir jek jek ni lima gis xamatu mako genn na koku point yu beure beure lay walay wàññi Macky Sall loolu loolu mom lu wér la man ci lima japp jàpp quoi en tant que soutien ak lima ma ci Youssou Ndour parce que maa ngi bëgg a yàgg ngi bëgg Sénégal xam Youssou Ndour xam liko yalla may maki nak bon nguur ko dab waaw wax deug yalla Youssou nduur nekk koo xamante ni ku Sénégal gépp soxla la kon damay jàpp ne kon ki soxla nguur moom moo soxla ki Sénégal gépp soxla waaw loolu daal am naa ko ci xalaat boo xamante ni Macky Sall daal moo mënut a dem sans Youssou Ndour. waaw parce que Youssou ak Macky man kenn mënul dem bàyyi moromam. seulement bu kenn ku nek demee baye sa morom kenn ku nek mën a dem baye sa morom mais mais mais du du avantage si ñoom ñaan ñëpp parce que Youssou Ndour su duggé ci politique pour soutenir Macky Sall lu ci ëpp mom la won quoi parce que dafa poser won candidature ñu rejeté ko après mu ñëw nek génn ma ànd ak yow après mu and ak Macky Sall et puis bimu and ak Macky ba légui mi ngi ci gis ay avantage bopam et puis mi ngi liggéey réew mi ci côté Macky Sall Macky Sall tamit mu perdre Youssou Ndour baxul ci mom parce que wuro perdre ben ben responsable boo xam ne nii am nga am nga tur ci dëkk bi walla nga am mbooloo mu topp sa ginnaaw dafa war a dajale ñëpp moo tax comme seen li ma dégg su wax ko ni ma seetaan di bërki démb si tele bi Macky Sall li koy yaaxal mooy entourage bi moo ko yaaxal un petit ko quoi su fekkonte ne dina jéem a di toogal moom en personne ak ñi muy toogal ak ñi mu séqal euh, langue gi di waxtaan ak ñoom bay déggoo di am ay consensus yu clair moom moo gën quoi no man li ma ko gisee man jàpp naa ne ñoom ñaar ñëpp bàyyante teel na ci ñoom ndax gisuma fi lu jar bàyyante ndax ndax Youssou Ndour bon dafa xalaatam xalaat boobu moom tamit bari nañu ko am ci surtout ci coalition bi loolu mu wax gis-gisam la xañ na dafa ko am na ñoo xam ne gis nañ li mel ko mais man loolu dama koy nangul loolu mu wax noonu loolu tamit ndax neñ am na ñoo xam ni vraiment dañuy dañ dañ ni ñuy nekkee xam nga rafetlu ndax fi ne même si mbàkk gi ñu dëkk nii sax da dugg si ko ñaan la koñ bii di moo fa nekk war a fa war a ñëw bala nga fa war a ñëw da ngaa war a tàgg ma sàmm wala ma demba loolu xam nga amul amul sens li am sens man li ma jàpp mooy ñun président Macky Sall la ñuy jàppale comme président a defee man jàpp naa ne buñ fa tàllee a ñëw sotidee te li ma si parce que parti moom bu si kenn jugee rek manquement te manquement aussi itam mën naa déséquilibre kon man li may wax mooy tam président di gën a xoolaat ginnaaw xoolaat entourage am par ay compagnons am aussi itam xool nu mu leen di gën a ñaaxaate ba cohérence mën a am aussi itam bu mën a liggéey en parfaite harmonie mais itam Youssou Ndour dem man xalaatuma ko te itam bëgguma ko rafetluwuma ko itam te yaakaar naa àgguñ foofu sax te itam Youssou Ndour esprit esprit de dépassement sam na foofu te intérêt euh, nation bi moom moo ko gënal xam na ne président mi ngi liggéey te itam day jàppal da koy jàppale opérateur économique la entrepreneur la koo xam ne ni aussi bëgg na aussi itam Sénégal émerger kon donc yaakaar naa ne kon comme que convergence boobu am na si ñoom te loolu moo leen tënk muy réew mi yaakaar naa moo ëpp doole intérêt personnel yi. waaw Youssou Ndour de li ñuy wax diggante ak Macky Sall moom mooy moom mënut a dara Macky Sall mënu koo defal mënu koo yàq ndax moom Macky Sall def na ko joxoon na ko fi doole ju nekk. bi mu ko joxee doole bu mujj mooy élection locale yi bi ñu ko boolee gis nga Bamba Fall ba mu demee Medina Bamba Fall da koo fet ba mu nooy Youssou moom na xam ne nit ñi ñun way boole wuñu ci politique ñu ci boole na bàyyi jukkee ñànk tangam ji mu yor nag ba élection yi li ci des bëreetut mu bëgg naan day jéem a nat amul dara bu nattee boo dooleem dana xam ne moo amul dara Sénégal kenn gëmu ko kenn faalewu ko nga xam loolu moo gën muy jéem a taxaw naan day jéem a xeex day xeex Macky Sall bi a yokk ci pouvoir am dara mun ta wàññi ci pouvoir dara. ndax Youssou Ndour apporter na ko lu bari te Youssou Ndour dafa joué lu bari pour ci euh, maanaam Macky Sall euh, ñëw pouvoir Youssou Ndour da cee joué lu baree baree bari parce que benn yor na teleem yorub rajoom télé bi Youssou Ndour bi ak bi saa boo ko dégloo di nga xam ne Youssou Ndour moom. quelque part dinay jàppale Macky Sall donte nag am na ay journalistes yu fa nekk yoo xam ne yu moom seen bopp lañ mais ci ci ci ci ni ñuy doxale moom da ngay xam bi la àndal kon ak yu bëree bëri te yu Youssou wax dëgg yàlla yàlla may na ko ci benn côté mooy influence la donc influence googu mu nekk influence rek moo tax euh, pour l'instant nii saa ak pouvoir bi nii ñu amee problème pour l'instant ni nii nii moom sa bu Youssou Ndour génne ci moom moom dañ naan kon nag affaire bi jeex na. bàyyante bi gënul ci président Macky Sall. xam nga manam kuy wut aw nit mom do wañi nit ku ni Youssou Ndour du n'importe quel tay ji fim mu ni bu yus Ndour jele ci mom ay engagement fenn fune taxaw na fa jàppale président kon mom ñay dox digëntem ak yus Ndour loolu nako bañ te du yus Ndour kep ay yus Ndour yi bari fim mu ni ñu ngi ci Sénégal ba ci Mbàkke gi ak Touba ak fenen fum ñak rek problème bu mel nonu diw du dara ak diw indil dara ak waral